قبل وجد وأدم وأشرف مالي من فوقي مالي من فوقي سبحان الله وجد فوقي من جاء وطن بين الجبراء وعلي الأسرة على عيون الناصر moom moo moo ko defee mu ñëw nag di waxal ko mu ngi sallallahu alayhi wa sallam yeneen bi ne ko ndax jàng nga ci tawreet ne yàlla bari na téere ci biir téere ci réew xam nga ne yàlla bañ na loolu mu ne ko waaye mu ne ko waaye téere ci réew mu ñaar boo ne ko yàlla wàccewu dara ba mu tëjee ko nag wóor bi daal di ko song bu ko ah ba wax nga fi tey nga ne yàlla wàccewu dara xanaa taw rek lii téere yàlla far te ñun taw rek lañ jëm moom la pour wax nag wama qadaroo ñoom day màggal yi laa laa ko xam ni bëgg dëgg màggalam wama qadaroo xamuñu laa laa ko xam ni bëgg dëgg xamam bu xaaloo dañ waxee ne naan ko laa wàccoo yàlla ala ko sëriñ ci doomu aadama mu seen dara ba nga xamee ne maa yi ñu koy fi wax na ne yàlla wàccoo ci doomu aadama dara loolu dina ko nag tawreet nag mu ne dama meroon ñu ne saa yow soo mere rek dal di wax du bëgg dal di ko fane pour waxal maanaam salaat ana ku wàccal mu ak ci saako ci rek ñu baaba jaay ci ñu ci moom Moussa Moussa Noor ñu ngi leer moom dañ ko bind dinaa fi ñaan ñi yàlla na da ngeen def ko xalaat yi sa ay kaw ñu ngeen di julli ci jonaa da ngeen sañal lu ngeen toog ñaan ñi ya ko xool sa ngeen lu ngeen toog parce que ay bëri waaye ñoo ñu ko xamale ak leen maalam taala moom ngeen xam daan fi yore wala ba ko ci wax ku wàcc ko rek di la xam ne ngeen ko um dindi ngeen ci ñaan na bu ngeen ci na sañal ci ku wàcc ci defo bu ngeen yàlla wàcce dara pour waxal ne ndax yàlla ko wàccee ne kii ko waxul ndax kon ci biir moom ñu def suñu xarum dafa bëri loolu yàlla war nañu xool ci xaw bi ci ci seen ci baatin seen ci xaw bi ci baatin seen waa saa ak jila alquran waa saa jila alquran nag ci taawul téere la am xam naa bu waxal ko ñu baara ko mburu borom barke rek ñere bi nag di alquran yàlla wàcce ko ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu téere bu bëri barke ci képp ci ñu gëm bu waxee nag ci képp bu ko waxee bokk na ci ba ba alquran ak li nga xam ne ci alquran ci ñoom ñu wax alquran taxaw ci suuf taw bi na fi ak na fi ci te taw baa ngi alquran yi di ko jàngal dañ tax di sax asamaan di taw def bu ñu ci alquran nag war ko ci dund ko tool war ko ci taw bi bu ko jëloon ko dund wala bu fenn wala da ngay yabal ngelaw bu ñooy mu bëreet ko suuf bi di jeex boo ko defee nag boo ko defee nag suñ ko defee xam ne kenn ci wàllu yi nekkatu ci wàllu faale nekkatu ñun dañuy sukkandiku ñooy wàllu boobu la ñu ko defee kon nag ñu jëlee yëre yu bëri ba tey ci yéen nekk na ci bàq ci yéen daa faral di ci yàlla di baax yaram di baax mooy rabu baax yi mooy dina la jubal wala ci suuf rek ba ba neexal waa am naa ko ñëpp fës ko ba xam ne soo xamee ci wàllu yàlla saafara la ci yaram wala la ci ñëw xuraan maa wër ci saaram ñëpp jàngoro alxuraan mën na soo saafara ba nga xamee ne léegi na ko kasa waxee na ak yeneen bi ci yamaama julli yeneen bi leetar ñetti ko ci ni ko ñetti yeneen bi yàlla jëm ci Muhammad yeneen bi yàlla ñu ci ñaare xaal na suñu diggante genn wàll bi wala wàll yeneen ci ñoom genn wàll bi man yéen a ngi sant ko rek ci président Mouhamad yéen a ngi ko yàlla moom ci biir tool bi kanaa kon bi suñ ci yàlla te moom damaa koy jox mu ko toog dara wu ñu wala wala ñoo koy mujjee. ñoo ko def nag ñu ko ñu ne ko Mouhamad alquran bi rek moo tax liggéey yëpp te ko moo tax ñu topp rek dañu war a defar alquran ñu ko nag ñu war a defar alquran yàlla xalaat ko ma sax daa ko ba nga xam ne ñu ci ci biir aram sax gis naa wax yooyu baax Fakat maa yoo xam ne waa xam ne ci xel la. loolu am ci lu ma ci yéen. damaa affaire yi am ci yéen. loolu gën a mun a ci yéen. waxtaan soo wuñ ko yéen. bu wax naa. wala di di di ko la am yaa ko bëggoon. bu wax naa. waxtaan baaxi naa ci sax man. maa ngi ciy jigéen ñi wala. wala saa bu saa di xutbal. waxtaan maa ci saa man. xanaa dafa xutbal. moom. dinaa xatee naa kan. إنا أعطيناك هبعك حقك فصل لربك وارحم إن ذلك الرحمن هذا هو المبلغ baat yoo xam ne lu ñàkk maanaa la jaaree ñu tam ñëw ne ko Muhammad li tax ñu gëm ko ku feebar ci saadaam rek bu la tax loo wër bu la tax laa xaaral di nga daal di wër boobu ku feebar mu ne ko feebar ñu wër ku feebar ñu ñëw ni rek ñu ko feebar ñu defoo ñu ne ko Muhammad saadaam xale bu ci rek buñ ko ko lu ñëw mu tax ñu ko rek xale bu ko nekk mais xale bu jublu ak ñoom ñoo ñu jëlee ñu bu ko tax ñoom ñoo ko doon boole. Muhammad day xaabaana nit ci juwaanant rek bu la tax loolu nga wër bu la juwaanant nga ñëw juwaanant ñëw rek bu la tax nga wër ñu. loolu ñu ko jëlee bu bëri barke ñu ko moom ko ñu nag ba suñu maara ko tax a moo tax a tax a gannaaw yonent yi wala ko fi amaana waaye ca lañ farayee rek ñu fekk ko la fii alquran aji dëggal la mu yore laa yore laa wala yaa dégg ajuna kala koy jëkkal wala suñ ko raa ñu la la la mu masra la mu dëkk ci makka wala la la ñu ci gogo wala suñu ñaan ñaan ñaan dara ñu gëm di laaxal ci yàlla ka ñu suñu ñaan wala ñu dara ñu gëm di laaxal ci yàlla ka ñu ñu gëm di alquran ne ko ci gëm na ala ala dara ñu gëm gëm alquran ñu ñoom ñoom yaa fi ñoom ñu waxi ala salatu yi ci liggéey wala yaa ñu masra la ko di ban boobu ñu ko waxal wàcc na ci mu ko dina ci kàttan ci wàllu waxtaan yu nangu. dama naa dama ko kenn di ko soññ man saa sa kàttu dama ala ala ala ba ci ban nar rek bay xoote ak ñeneen ci. aw xaala yi seen wax wooy wooy na ñooy jël ci man wala mu waxate woo dañ lay jël seen seen dara. mu ne dañoo wàcc ci moom ak wooyu te fekk na wàcc yi ci moom yan wooyu. waman xaala ak saa xam ne tey ci lu xam ne waajee musulmaan salaaw jàngalal ko naka la ko sama naa gën a ñaaw moom nee naa ñu ci rek ñoom bu mu amat bi jam saam jënd tali la wajib na ak alfabet rek moo demee ci ci jaaxaane yi di ko isaan pare naa leen di rek la Muhammad wax saabaan yi ko ñu ko taab ñu ci ñu wala wala damay laal yàlla ba gis ñaari ñaari lalu loxo gi sama loxo la ci ko lool dinaa ko wala ci ko mën naa ko wal maal ko mu maal baaxul naa ko nag ñaari xarit ak ñu ci sama sama borom mais mu soog kenn ko mu soog mu ko saawa kenn ko ko jaara ko jaara mu ñëw ko moom abu ñëw ko jigéen la mu soog ma tudd ka xam moom ñoom ñaari ñu ñu saawa bu ko xawa bu ko xawa ba kenn ñu wax ko digal ko da ngay bëri ko ci ay lañ wax am defar jiwo ñu di borom ñoom ñaar di ñoom ñoom ñaar ñu ñu comme ñu ma ñu ko ñu ñu sallallahu alayhi wa sallam loolu ñu ko ñu ko wax tax mu rafet ñu ko wax ñu wax ñu ko ñu ko daan wax ñu ko daan wax ñu ko wax ñu ko gis ko boy tay ñaar ndax jigéen bu duggee ci ñu rafet bokk sol ko rek xam ni nekk lu ma ci ban la wala xam nga jigéen rek ñu xëy ñu ko ko fa mu na taw yàlla ya ko ñëwal ci li tëddee lu baaxoon bu ma yàlla bëgg a baax ma ne ko la woon bu ma neexee ma jox la suñu ji sakkara si bu ma neexee ma jox la ñaari suñu ji wala lépp ndax fa ne ko lépp ñu ne ko noonu la ko yàlla waxee ñu daal li ma yàlla loolu xam nga jëm ci ak waroon ci laa yoo ko noonu naa ko def rek ndaw sa daal xam ne ci ñoom li ñu ci waa ñoom naa mu daal di génn moom dem ba ci boppam. loolu daal la yéen a ji noonu xaaral moom. ray ko ko jëfandikoo. ndax moom gannaaw ba yàlla digal ñu ngi ciy jot. ñoom daal la wax naa. tey dama gën a tooy su ma waxee ak yéen it. di wax ne wàll wàcce na ci noonu wala wute wàll wàcce na ci noonu dara. ak man li ñu xaar si doon dem di gën a gën a yëg. di ñëw am ci li ñu ñëw di wàll mooy ay journal rek. ñu dem di ko. mën nañu mel ni alquran wala alquran daal di jëfandikoo yow Muhammad di baari ñu ne bëggoon nga ci ñëw suñu camarade bi moo ci aji nekk lañ ci waxtaanu dee waaye yow yéen a ngi ci biir ñëpp boo ñu jëlee nag ñëpp nag di jaww ba wax ñu jël ñëw ci ñoom ba muy xarxal nag am na borom mu ngi ci borom wala malaaka su malaaka ya baasi ci ay jiw way tàllal lañu la affaire malaaka mu ne nga ak ci wàllu bi ci kër gi ñu ngi koy jiw ñu ngi koy jiw yoo xam ne mboolem ñun asamaan si ñu ngi koy déggee loolu ñu ngi dégg ñu rek ñu ngi koy dégg seen bakkan yi sax ñoom sama affaire bi la jënd woon de jënd woon am ci sa kaw ay bakkan ci yoon ak wàllu taw yi. ñu jox la def na sa yoon ak alam yi ñu doon wax ne malaaka yaa ngi góor yaa bi ñoom góor bon na ñoom ñu ñu leen seen bakkan yi yaa ñu jënd ñu góor te ñu ma sañ leen di ci yoon de dinaa ko dund saa su la ngeen nekkoon tax ma di wax allah yàlla allah comme li ñu bëgg ak di xoote di ñëw ci di ci bokku ci ak la ngeen nekkoon sokkat di ma di leen wax naa di ci dara dem di leen dem di bañ a topp alquran yàlla bi léegi fan la ma ne kon kon da ngeen di di mag rek wala kat bi ma nga def na wax leen ci jëm yoon ni pour ha daal di ni rabbukum say borom sol la ilaha illallah jàng ci dëgg la Allah moom xaaral ko li toog mooy aji dund lépp la mu di dund saa bu dee yéen doon ko jàng de waaw moom waxtu yi aji waxtu la mu xalaat ko li toog ci lépp la de daa ko di ci jot ci ko def saaru bëgg bëgg mu ngi ko jot ndax waaw fii dina lool ba nga xam ne mosuñu ko mënuñu ko gis ci àdduna fii kenn mënu ko gis ci àdduna waaw ci bët yi ci bët yi suñ ko waaye nag daañu ko gis bu jóor ñoom suñ naa ko rek ñu dara dara naa ko rek yeneen su ne ndax weeru badar weeru ci guddoon yeneen su ndax gis ko xam nga ko ba mu toll nii boobu moom lañ leen di joxe woon borom tënk wala boobu moom it ci borom mu jot la saara bëgg ko yàlla bëgg di ko jot waaye moom dana jot bëgg ko boobu moom daf ci foo aji yëf yi di lëngu alxabiba yi xam nañu baat ñu yëf yi ne ko biti rek ak jaakum di ko ñëwoon ba saara ay lawe ñu war bëgg ci borom borom seen dama naa solo ci gëm nañu kon nag ci gëm ko ñu wàllu boppam dama xam ne ci wedd nañu waaye ba na ko def borom wa doon de dama xam ne jot naan di wàcc ñun man suñu di xafu ñun ma aji ma mënoon sa allo ci yéen de maanaam du ma leen mënoon sa waa ci ba di leen farfa ci jëm wala déedéet su ngeen gëmul baax na su ngeen gëmul mën nga far rek ama war ba ko saali ko wala yaa xoolu am nañu wax ne baraf ko jàng yëpp yéen jëkk yo ñu ne Muhammad yi ñu wax yëpp daf ko jàng ci téere yu jëkk yi ñu di ko nekk li loolu ñu bañ na am ñu nañu digal ko ak ñu war ñu xam ci tabi papal maa wala wala lo ko jëm ci am rabbi ko ko borom sa la ilaha illallah bo jaamu ci bëgg la wala moom waa ñu gëddal am na si tool yi nga bokkaale nga def wala saa allah doon ko soobal ma yàlla maa ko bokkaale ci ñu de su fa kon ñu sóobu wàlla kon duñ bokkaale ba ba ma jaaxal naa ko bokk ci ñu la ak ñu fan nga ji mëneen sa aloon ci ñoom ba ba ma ante di doog wàcc li nga ji mëneen sa aloon ci ñoom wala parce que bu ñu yàlla ñu ñu la kooku lu ko waxam wàcc na ci ay julli yoo xam ne dañ doon xas kërëwul suñu xasee kërëwul sa ñu fa ñu tam xas yàlla yàlla ne wala parce que bu leen xas àll si na ñaaye yàlla xam nga dañuy jaamu leen ñu daa rëdd yàlla yéen jullit yi bu leen xas seen këram yi te su boobaa danañu xas laa laa doon ci ñoom de ndax su ngeen xasee këram yi ñoom itam ñu xas yàlla da xaar yàlla ñu ci réer ndax dañoo réer waaye nag bu leen xas këram yi loolu itam ñu xas yàlla ba tasaaru ko seen digal ñu digal ñu ci doon te na lañu rafetal tasaaru ko nag ñu rafetalee waaye ñooñu yàlla ak réer ga ñu nekkee te na lañu rafetal li ci li umati ñeel yëpp taxaw amalawum jëkkoon leen doon ñu doon xaw pour mar jooju parce que delloo ay seen xibaar ak yéen jël na ko borom seen dañu ne bii tam sama leen dina tànn ci lañ nekkoon yàlla doon doon jëkkëre waa xam ne duñ ñun du laay ci yàlla jaaba aw naa ñun bàyyi ko jëm ci woon ndaw jaarum wala ngeen dikkan na leen ay bu saako ne suñu ko sakkoo la woon ñu ne dinañu jëm bu waay ci nangu ñu dañoo laaj ñu leen ci ay saako te ne bu songee dinañ jëm su loo xam ne ma laa yaatu ne la saako ne balaa aju nekk la fa yàlla mu doon wàcc saako ci loxo yàlla rek la nekk na ko ko soxla la koy defee man waa wàcce kaatoo sama yoon nekk ci waa borom ñoom waa maa ngi seetlu kum xamal ci mu leen am naa naka ñoom kaatoo fa yaa jaar ndem di keneen laa woon ñoo gëm ci ñu de su kaatoo wàcce ñu di sax ñu jëm te ku xas laaj kaatoo na su wàccee ko gëmu la waa yàlla daf lay xalaat boo ci ngëm ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu tàmmaloo ko wala ñu wane kaatoo yi waaye xamal nañ ko ne bu kaatoo yi ñëwee duñu gëm te duñu gëm nag daa ñu xalaat wala ñu bañ a wàcce kaatoo yi nag waaw ko ñu xeleen da ci ci yàlla war sagal gën mu gën yonent ne tànn na loolu de wala xalubu danañ sotti ak idatam ay bët seen kama waar saarawum ak i bët seen ak idatam ay xol seen waar saarawum ak i bët seen kama lam yamu ne naka gëmuy moom bi ci moom aw la ma rasin si jël ñoo yoon wana sarihum dañuy bay leen yaama ñu danga dengi ci doxyaan yi ci daw seen de yàlla daf leen di wax ci réer rek réer yàlla ko ci taatu ñu ko tax a jubbe wala war naa na sama yi malaayikata kooku lu ko waxal wàcc na ci mbooloo ci saaba yi presse dañoo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko yàpp sonal nañu yàpp yox lañ bëgg nga defal ñu ko soo ko defee rek ñu gëm la su fekkee ni defuloo ko nag duñu sonal duñ la gëm na nga fatti daju safaa ak marwa nag ñu ko fatti mbirus ñu séddoo nga doxal ba ñu Makka yi ñu sori Makka ñu am jot yi ñu bayee na ko ñëpp ñu am i tool nga bokkale ñu xisa yi ñu ci laab suñu maam ñu wax ñu ne ñu doon ko yàlla nga su fekkee def nga bii rek ñun ñëpp ñu jébbalu soo ko deful nag bul sonn ko bu ñu waat saaba yi ne yonent defal léegi rek ndax ñu gëm buur ne wala wana naa doon te na ko nuñ nasal naa wàcce na leen jëm ci ñoom al malaayika te malaaka yi ba noppi te na yàlla yabal malaaka yi te ñu ñëw wax ne ya Muhammad wax na dëgg yàlla ko yónni su fekkee yàlla ne su fekkee wàcce na malaaka yi ni ñu ko laaje wa kallamahum te waxee leen al mawta way dee lu dekkal xisa yi mucc la ak seen maam mu wax leen ne yonent bi wax na dëgg yàlla ko yónni wa hasarnaa tam boole alayhi ci ñoom kulla shay'in lépp la subalan ci janoo ñu sangal leen daji màkk yi niñ ko laaje soppi leen fasaa wuju ñun booy maakaano nekk ci ñun ñoo di gëm de yàlla ne yonent yi yëpp mën naa ko def waaye su ma ko defee maa ngi lay xamal ne ñu duñ gëm te suñ gëmul nag booy mbugal ni mbugal dana wàcc ci ñoom nag illaa ne sa ala ndara mu sob na yàlla wala ci noonu fi nekk ak suroon gëm gëm seen dañ fa doon danañu réere loolu de ñu bari dañuy réere ne kaw ci mën da tax a gëm yàlla mooy gëmloo jaamam bu ko soob yàlla ñu gëmloo waaye ku yàlla dem jullit gëm ci sa xol kawteef lu mu rëy rëy doo ko gis sax bam di la gëmloo kawteef yi pëncam yàlla ci gën a màgg dem ba pëncam yàlla janoog siraat janoog al janaag safara janoog hisaab janoog nangu téere jëf yi kawteef foofu la xam te yàlla wax na démb ci laa yi ne wala ruddoo la adooli maa noomaanu gannaaw pencam yàlla su jëlee si yoon xéefari ji àddina yi doo ñu weddi xaat kon nag lu kawteef yi jëriñ dara la du jëriñ bu fekkee ni tey kawteef rek la alxuraan yàlla jule comme dañu kawteef ci kuy laaj téere yàlla am li kañ ci loxo yonente bi ci mujj saat dem na bokkati benn weer lu wàcc seen diggante ñu gënoon ñaari xar-xar yëpp ak dëkk ba si nekk seen diggante ñu ne sihru mustamirun ñu ne njabar la rek te bu dagaa dina ñooñu kawteef yi leen tax a gëm de doon nag bu leen sonn ci di hitoo yonente bi won won leen ay kawteef yàlla leen wacc ko kasaalika naka nu defee kilifay makka ñi di say noon jaal naa leen def li kulli nabiyin ñe def yonente adduwul noon de niñ la takkale ay noon nag yow yonente bi yonente bi yàlla ma sa yónni takkal na ko noon bu koy lor de nekkoon na ñeer aadama xaa iblis ak xaabil doomam ñeera na yonente yàlla nooyam kan xaam doomam moo doon firawna moo doon noonam yonente yàlla ibrahim Nimrod moo doon noonam yonent yàlla Musaa Firawna moo doon noonam yonent yàlla Isaa yahuud ñoo doon noonam ba léegi ñooy noonam yonent yàlla Muhammad Abu Jahl ibnu Hisaam moo di noonam naka nga xam ne yonent bu ne dana am noonu naka nga Siddiq bu nekk itam dana am noonu yonent bu nekk dana am Firawna Siddiq bu nekk dana am Firawna baaxam yàlla la boo xam ne du dañ nit waaye nag lu yàgg-yàgg siddiq mooy xalak firawna waaye duñ fekk mukk firawna moo xalak siddiq fakkatuma gënant de firawna sofo sa baaru xalsoom waaye nag bu ko neexee mu fekkul jaam bi muy dem sax muy baaru xalsoom wala buy xare jaam duñ ci soldaar jaam bi ci boppam mooy mooy bopp soldaar bi moom ngeen yéen soldaar yi ngi rey jaam bi kon lépp lu mu yaakaar na ne ci dooleem la ba loolu la ko yàlla xalage xalaat yooyu min fi saytaane nit wal jinne jinne noonu yeneen ci yàlla yi nag ak noonu wal yu yàlla yi mooy saytaane yi nga xam ne ñaari xaaj lañ ñu saytaane ci jinne lañ bokk ñu saytaane bokk ci nit yooyu dana jax-jaxal baadoom ñaame seel ilaa baadin jëm ci ñaame soxofal xawli mi ñu afetali wax xorool nit gawatde saytaane yi nga xam ne dañuy xeex wal yu yàlla yi nag dañuy sos wax yu rafet rafetal ko ba ci ko dégg mel ni dëgg la waaw ñu di ko sànni léegi di ko tasaara nag pour xeexe ko wàññi yàlla yi wala saa doonte sooboon rabu ko borom sama faalo def ci ko waaye def googu ñu koy def dum la naqadi su sooboon yàlla loolu du am fa sorum bay leen rek ma astronaute la benn ñu dugg ko gàcc ne nag seen biir naar waaw gannaaw ga man yàlla man maa koy jaare ñoom de wala tas xaa añ ngir na jàng la dina déglu ñu jëm ci moom ak nga dund dina fali ñaañe laa yo ne gëmuñu bi laa ci àllaaxira de ñi nga xam ne yàlla xëy na leen aw yu nag buñ déggee sos yooyu ñoom daal di ko gëm wal yar la ak ne nañu gërëm ko ñu kontaan ca wal yaqtari fo ak ne nañu fàggu maamam la ñoom mu xeex wal yar daw ngeen nañu gërëm ko wal yaqtari fo ngeen nañu fàggu maamam la ñoom mu xeex fo na fàggu lañ ko rek ba yàlla alal leen ca afakaara la abtaxi hakaman wàcc na ba nga xamee ne ñëw nañ ne yonent nañu xoo ñu xàtte suñu diggante ci ahlu kitaab ba xam yaa ne ci dëggam am ñu ñëw ne ci dëgg buur ne a abtaxi man ay a afa abtaxi man day sàkk ci mu xaala laa lu yàlla abtaxi sàkk ci mu ko hakaman ñoo jaate sama diggante yéen ñoom ñoo gëlëm ñoo sikki ñoo jaaxle waaye yonent moom gëlëmut xam na ne moo nekk ci dëgg sàkk ma kenn ko xàtte sama diggante yéen woo moom la siin mooy bur bi nga xam ne man fa la wàcc na moom léekum jëm ci alkitaab alquran man yàlla day rama ci ajaate te yàlla wàcce alquran bi wax na lim wax jeex na mu fa solon ñu ñu bidale wala sina ñaaño aatee na moom jox mu leen alkitaaba tawret yàlla mu ne danañ xam annahu naka moom alquran mun solon li ñu wasal la mu daal di ko dëgg borom sa mbiraaq ci dëgg de wala takkoon na naa waaye buñ nekk meen mum tërine ke moy sikki jëre wa tammat mat na kalimaatu rabbika tëhali borom sa waa ak xàtteem de lépp lu leen yàlla dëhël nam leen ko dëhël rek noonu la mel xàtteem itam amu toppali de su xam nit ñi borom a dëgg wax dara naka maanu de laa bu bëj la dee aji wat li kalimaat yi ji tëkkam xamut tëkkam yàlla bu benn bu boo xam ne dana xot xamut itam xàtteem boo xam ne kenn dana ko firi de yow moom fameoo mooy aji dégg la def na wax ko alhamdulilah moom la aji xam de la def na jëf ko de yooyu su dem topp la ak sara man si lar bi gën ca bëri ñu nekk ci suuf ñu bindoo ko ñu réeral la an sabila wala diine yàlla de ñu gën a bëri ci ñun suuf nag boo leen toppee ñu réeral la de ndax ñu gën a bëri dañoo de yeta doona dem ñuy topp ila ganon dara njort njort rek la ñuy topp di daggee ci affaire njëkk di wax naa yéen yéen jëm ngeen yàlla lu yàlla rey ngeen bañ koo lekk lu ngeen rey nag ngeen bëgg koo lekk yooyu ñun de ñoom ilaa yaxrusoona dara danañu nar de ina rabbaka naka borom fa huwa moom alamu aji xam la mu man yàlla bu ko gënoon wéree xam sax bi mu wëli diine ma woo ma alamu ma aji xam du mu tëddee ci way diine de te na fay ku nekk ku ko doon lekk leen ni maa su kër ci rek de bisimilah suñu yàlla alay ci ren dem su fekkee ni da ngaa bëgg a lekk daal lu lew lekkal yàpp woo xam ne dañ koo rendi ci tudd yàlla bisimilah rendi melaw rendi alquran bi delu ko tudd yàlla rek la wax waaye yonent bi def na ko ne mooy lu sotti lu loj deret loo xam ne yobal na deret suñ ci duggee tudd yàlla loolu moo di rendi li di bëñ ak weer boo xamee ne daas nga paasal ba mu ñëw wala aw daj sax daaj nga daas nga daas nga ko ba mu ñëw ba mën a dog nga tudd tudd yàlla rendi ba deret ja sotteeku rek loolu mooy lu dagana lekk rek su bën dem nekk yéen moom ñoo di way gëm de aayat yi ci alquran de su gëm alquran bën lekk lu mooy lu ñu rendi de ci tudd yàlla wama lakum ana loom ngeen allah taakulu ba lekkati leen naa su kere de suuraay tur yàlla ala yi fekk leen dem waqat fasala fa fasala namu lakum ñee leen maa harama lam haramal alaykum ci yéen yàlla jure leen na lu dagana lekk ak lu harama lekk sunu tëj bi ne bidal na ko fan bidal na ko ca aaya hurrimat alaykum maytatu jëlee leen démb ca saaru maay bidal na fa la dagana lekk ak la harama lekk séedé yi lëntal loolu ne naka la naka lay mën a waxee ne digal na ko ca saaru maayit te saaru lan xam mi ngi wàcce makka te saaru maayit moom mi ngi wàcc ci madina ñu mi ngi wàcc la bopp bon nag bi bi muy wax ne fasale na lim xaraamal booba saaru maayit wàcce gut kon nag naka lay dëppooyee ñu ne li gën a jub ñu ne waxat fasala digal na mu lakk ñee leen maa harama la mu haramal aleykum ci yéen ci aaya kulla ajidu ji ji dikk ci léegi kooku moom moo saar wi ñoo wàccandoo saar wi yëpp ci benn yoon la wàcc kon nag bi ñuy wax ne fasale na lam haramal ci yéen la kulla ajidu ji ma woy dee mu haramal wàcc na wala yàlla xamoon na ca xam-xamam bi jiitu ba ne kaamil bi ni ñu koy toftalee saaru maay mooy jiitu saaru la am day di ne saaru maayit moom mu jawaat ci tam yàlla xamoon na ne ni kaamil bi na fa woon ca la ñu wax fa mooy maayit jiitu lana xam kon nag xamoon na ne balaa ñoo jàng lana xam dana fekk jàng nañ maayit bon nag amul jenn firente de lii dëgg mooy ci yàlla amul lu wéy amul luy dikk fi amul lu teew yëpp a yem ci moom lépp léegi rek la kon nag lënt amu ci de li mën a am daal yàlla fasale na lam xaraamal ci yéen leeralal na leen ko moo di médd ak yéen ci xatat ilaa ma abturitum ilaa ma abturitum dara loola roof leen loolu roof leen ilay jëm ci moom de lu may nag soo xam ne dafa tuñjee xamul lu mu lekk te xamul lu may lekk médd kon fañ naa lekk médd de way naka seen naka aju bari la yàgg doona danañu réer bi awaayen ci bànneex yoon de inna rabbaka naka borom sa moom alamu aji xam la bil mu ta dina ca way way jéggi ña daaya rek wasaroo bayi leen zaahira lismi aji feeñu bàkkaar o baatinoo aji nëbboom ne bàkkaar baal lépp lu feeñ ak lu nëbbu ñu ne bàkkaar bu nekk la yàlla namm ñu ne njaaloo la yàlla namm de inna lasina naka ñaaña yaktubuuna danañu fàggu lisma bàkkaar te yi soxna xalew naa fay leen bi maa saa si lañ nag ko yàq rek ma doon fàggu ko de wala taakuloo bu leen lekk mi maa la mi kër ci la tuddee fu ismu laay tur yàlla alayhi fag leen loo xam ne ren nañ ko te tudd yàlla wala mu deexal boppam loolu bu leen ko lekk xaraam na loolu ne ko naka moom lekk nit ñi ren ci tudd tudd tudd yàlla la fi kon jëri topp yàlla la de way na sayaat na naka saytaane la yow xoo naka lañu jaxjaxal ilaa awliyaahim jëm ci wàll yi seen naka xéefare yi jaajuloo kum gum nañu dàggee yéen ci dagganal ñetti de fay naa parce que ñoom dem to topp yéen leen innakum naka yéen la musrikoona way bokkaale ngeen de su ngeen déggalee xéefar yi nag ba leen lekk medd xalaal na kon xéefar ngeen de lekk medd te xam ne xam nga ne xaraam na loolu mooy yàlla la rek li ngi mel ni mooy yàlla yi yépp mooy yàlla su ko jaam bi defee dafa war na ko ne lii yàlla ko tere bakkanam ko not rek bakkaat na mu balu loolu moom mooy yàlla rek la waaye su defee nag ne xaay fañ na koo def kon moom kéefar la rek xaw man kaana may tan fa aye naaw kooku lu ko wasal wàcc na ci xam sa fi naaw bi mu tay abo jaal ibn Hisaam de abo jaal ibn Hisaam yonent daf doon julli te dend ak Kaaba ga te ko xurisa la congaari fa de sëñ ka abi jaal ibn Hisaam seen buur ñu seen yonent ngay si joor kooka si joor fekk na ak gëléem nga wasin fa lay bari ci démb soo xam ne dañ faa xëppe te bëri ak teesit ñu jaxasoo yëpp di ban lu xet ga ñu ne ndax kenn sañ naa dem te tige gëléem gale di nëb gale ak sebris rek xab ko dem parce que Muhammad fa lay ñu si joote abo jaari mu ngi am ne loolu man man rek maa ko ñëwee daal di dem xab tige gëléem ga ak sebris rek ñëw nëb gale yonent si joote ñu xëpp ko ko lépp di def coxtu coxtu coxtu di ko ree Faatimatu doomam moo ko jógee ca këram daal di ñëw dindi ko ba mu set mu xatta Abi Jahl fa mu nekk xas koo xasa xasa xas ba mu daw dem këram loolu xam sa tu ab rëbbkat la woon foo ko gis mu ngaa yaari settal mu rëbbi bay ñu duggi ci xaa daan lay bu rëbbi bay ñu duggi foog mu wër kaaba gi mu ñëw ñu wër kaaba gi nit ne ko gàcce gi yàlla teg sa doomu mbokk mi fay soo ko fekkee woon mu ne lan mu ne ko Muhammad de dem fële ne ngay jullee julleem yooyu Abu Jahl ibn Hisaam dem jublu genn ci jéggeelem ak sebris ci nëb ñëw sotti ko ko ñëpp di ko reetaan mu ne Abu Jahl def loolu ñu ne waaw mu wàññee ko rek ñëw fekk Abu Jahl fa mu toog mu ne ko yow yaa dem fekk Muhammad di julli nga dem di so sotti ci jéggeelem ci kawam mu ne ko waaw mu daal di ko dóor xaram la ba xaañ ko ci bopp mu ne ko Muhammad di xas sañ bàyyi di dofloo suñu kali di dofloo suñu kali bàyyi di ñu di xastu yàlla yi di xastu yàlla bàyyi mu ne Muhammad ak tay moo tay dofloo leen dofloo seeni bàyyi ci jaamu doj ku ko gën a doj mu ne ko suñu këram ñu ngi xas mu ne moo tay këram lu mu doon lu may doj rek ku xasu doj moo tay xas doj ñu ne ah xanaa yow xam sa dangaa far bëgg a bokk sax ci ànd ci diine Muhammad mu ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullaah jébbalu naa sax ci Muhammad ba xam ngeen ci man naa ko def nag Abu Jahl ne kooku bàyyi leen ko bu leen ko waxatu dara xam sa ci jébbalu tey jële soo Omar jébbalu affaire bi daal di sotti rek moom la buur di wax ne afam aw man kaana ka nekk na mu may tan di xéefër waaye naaw tanu dimbal ko wajaal naa tam def la wañal ko nooran leer yam ci gëm dana mu dox bi ci moom finance ci nit ñi kaman masaloo mu di kem kamoom ci zulumaati aji nekk la ci lëndami xéefër lay sa bi xaari ji ngir mu aji génn mi naa tukka ci moom ñoom ñaar dañoo ñu do am sa suñu yoo xam ne xéefar la woon yàlla jubal ko def leer ci xolam ba mu xam yoonu njub ndax kooku mën naa ni doog ndax kooku mën naa ni doog Abu Jahl ibn Hisaam li nga xam ne yàlla ko réeral mu nekk ci la nga ni kéefaram te du ca génn mukk ci suur alquran dafay tudde xéefar ku dee waxoon nañ leen léegi ci bopp yu njub yi lu tax yéefar yàlla di ko tudde tuddee nit soo xamee ne rocc nañ ci moom roxo jëmm ji bu ci roxo roccee ko balaañ fee am ñetti fan lépp nit soppeeku dëkki wànjar moo tax bu roxo roccee ko ci nit ñoo ko gën a bëgg lu ñuy def bañ rek dem gas pax suñ ko fa balaa nëb ci seen loxo su fekkee nag ni roxo lu ci yaram wi sakkan nekk ci loolu mooy ci dina jàpp dafay sàbbeeka def lu bon ak a wax lu bon moom it ay sotteem duñ def lu may daje jéng ko rek xeew ko fukkal roofoo ca roo ga nag te xamut yàlla wéetalul yàlla kooku nit la waaye mi ngi mel ni nit ku sànku rek nit ku réer nit ku yàqu nit ku niirangoo su ci xam yàlla wàccee nag ca xel ma booba lay soog a nekk nit ku mat nit ku dundangoo kon xam yàlla mooy roxoog roxoog roxo nit ki foog mu am xam yàlla muy roxoog xelam mu am xel muy roxoog roxoom mu am roxo muy roxoog yaramam mu foog a dund lu mooy noonu rek ñiw la moo tax yéefar yàlla di ko wax ne am ñiw la kasaalika kem niñ rafetale lañ tuddóon ci gëm yàlla ñeexal ku gëm ak weddi ñeexal koo xam ne am ñiw la ñu la rafetale li kaasiri na ñeel weddi way weddi ñe maakaanu lañ ne kon yamaloon doon jëkkale wa kasaalika kem niñ dafa saay saay si Makka ñu noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa kasaalika kem niñ defee way màggi Makka ñu di noonu yonent bi jaal naa lan def fi kulli qaryatin si bépp dëkk mujrimiha way bakkaatam akaabira ñu di mag rek ni yàlla defee kilifa yi defee ci Makka ñoo gën a bañ yonent ci Makka noonu la yàlla defee dëkk bu nekk kilifa yi ñoom la yàlla def ñu nekk bewkat yi rek li am kuréel ngir nañu fexe yaa ci moom ndax borom yi daraja ñoo mën a fexe fexe bu bon bi ci mën a yóbbu nit ñi wamaa yam kuréel na waaye fexe ti ñuy laa daan fi ci dara ci bopp seen de nit kuréel moo mën a doxal yenn pexe yi waaye pexe yooyu ñuy fexe nag jëmale ko ci ñoom yàlla jaxal bi ci ñoom yàlla ñoom mukk ci ñoom lay këpp si de wamaa solo na waaye xamuñu loolu ak sonde mooy kaaba gi nga xam ne kaaba ak xay la boo xam ne xay yépp ci fa foofu lay wër jumur xasee bëgg a sang fokk mu nekk di aji xañaan ndax képp tum yàlla may sang rek mu daal di ko xañaan bañ ko képp ci bëgg a sang fokk muy la jël xalal ko digg ñu la ji xaqam képp ci bëgg a sang fokk muy jël ndax yàlla may daraja te neexu ko di mën a sàmm boppam mukk fokk mu leen jël fokk muy seen itam foog ñu jël ay fen ay yëpp a ngee yëpp ci bëgg sang rek la xaju moo tax borom mbir ci na ne cosaanu gàtt yëpp mooy bëgg sang ak fàtte àlaxara te ñu na léegi na naka ñaane yàgg ci réew danañu sàgg nit ne bakkaat xabaare ndam di tëll leen ñoom lañ matal aawatum kawteef xaaloo ñu wax lan nañ la ñu day dëggal ci li ko alte dégg ataa naa feebar ba te joxee ni mus la ma aw tuwa comme la joxoon na ko rasulullah waroon ci yàlla suñ gisee taajee fi yàlla ñu ne ñun ñoo bañ bu yàlla bëggee ñu gëm daal nañu jox lu mel ni ñu jox yonent yi baroon na nga ñaan wa amee ñaan leen diggante yaare allah def rek la am ci alquran abu jaar ibnu saam daf ne bani abdu sam ñu kër ak bani abdul manaaf kërëg muhammad te suñu maam ba tey ñu yaari fa sikir su lañ nan bu ñu raw tey boo légéey ñu raw ñu toog nag ba léegi muhammad ne yàlla yónni na ma jox na ma téere te ñu ne amuñu ak yonentu amuñu téere noonu lan su yàlla bëggee ñu gëm lañu jox ñu kam ab yonentu ci bani abdu sam jox ñu kam ab téere wala duñ gëm de waaw xanaa ñooy secret buur ne allah yàlla alam mu haaji xam ay si ñaalu te fa muy def risalaat yi ak yonentam de yàlla kenn du ko sakkal fu mu war a def ak yonentam moom moo xam fu muy def ak yonentam de Muhammad la tànn moom la def wut yonentam ci moom la wàcc alquran ku bëgg ñëwal gëm ku bëgg xalatul waaye ma fekk ba ni Abdou Samse ji Abdou Abdou Abou Jaar yi ñu ngi am di laaj la yonentu joxuma leen ko. waaw bu jaar man nag ci loolu. xëy si bu xam naa jot. àlla si na ñaañu ak jërëm moo. bakkaat nañu saxaarum torox te xel laay fa yàlla de. waaw saa yu ne mbugal sa si mu daa ji kat bi man kaana ci lañ nekkoon yom kuréel doon sa sa sa te man yéen laa ko nam yàlla an yaat yow mu jubaleen ko yasra dana mu hijji sa dara xolam ni insaan jëm ci jullit képp ku yàlla dëgg moom mooy hijji sa xol waaw ba dugal ci islam rek hijji xol mooy yàlla sànni leer ci xolab borom yaaxal xol ba ba nangu ñi nga xam ne moom la alquran di jëde wanoon yël ci mu nam ani bi lawoo bu mu réeralet ko yo ñaan mu def fadraho danam bay yakal mu aji xat xarijan bi xat ji xat ka namaya saxali daanaka dana mu ci sama ay jaasamaan rek ku yàlla bëgg a réeral nag dafay xatal xolam da nga xam ne li alquran yi wax yëpp ak li yonent yi wax xolam dafay xat ba du ko nangu rek su ko defee mu weddi rek xalaku lislaam yàlla ay jubal jaam de tàbbal ko ci diine lislaam yàlla ñu jubal mooy wàcc jaam itam ba kenn du ko mën a yóbbu ci yoonu lislaam ne lislaam ñu leere yoon wu leer nañ ñu di dégg ba cëga ci xam xamuñ mel len sama borom bi ma sàkk dina dundal xalmaara yi moom laay jaamu du ma jaamu ko mooy yéen ñi ak yonentam ci gën a mat ci mbindeewu yàlla yi ñëw jotal ñu lu yàlla yónni wàcce téere yi nga xam ne way jëkka way mujj lot nañ ci def lu ñu doog moom loolu ku ci am ci ci fakka rek yàlla la wàcce ba noppi dem di jaamu ñu lu may aw doj doomu aadama ci gën a mat ci mbindeewu yàlla yi nga xeeb ko ne mun war da doo ab yonentu aw doj wu du dara nga mën koo jaamu wala garab wala bant wala kurwa wala istati ku sanqal nangoo noonu ñu ñàkk solo yi nga xam ne yëngatu fañ nekk sax mënuñ ko boo leen doon jaamu jinne yaa ci yëgu ne yaa ngi leen di jaamu mënuñoo jariñ mënuñoo lor ku mën a def loolu yàlla ba noppi mën a weddi ak ñenn ci ci ku mate ni Muhammad loolu yàlla ay indi dooleem rek ak coobareem dàq ñem bëgg a dàq rek xëcc ñem bëgg a xëcc waaye lislaam war doon a lënt kenn yoonu njub war doon a réer kenn ndax leer na du saaba yi di jihaat du tajre yi saam baaga ci benn dëkk àgg nañ ci réew moo xam ne buura bu jigéen a fa nekkoon bu am doole saaba yi dat nañ ko tam bu ñeneen ci weer mënuñ ko benn dëkk mu ngi ci soobor suñ ko tabax wala mu tiim ka patam yéeg ba ca kaw mu fapp xareeb jullit ñi seen ca xareeb bu góor ñu daal di jooy de xare bi ne ko ndogal ak yàlla lay jooy arab yi nga xam ne xalak nañ buur yëpp yow ñëw nañ ñeneen ci weer yu mënu ñu agsi ci yow yaa ngi xare boo xam ne kan daji du mukk dàq leen yaa ngi kata yoo xam ne kenn mënu koo toj yow looy jooy mu ne xale lu góor ba lema seen ci xare ci julli ñi fokk mu toj sama tata ji de mu ne lu tax mu ne dama ko bëgg te fokk ma seeg moom ah mu ne ko lu nga neex sa ndigal rek mu ne woo leen ma ko ñu woo xale ba mu ñëw mu ne ko man de dama la bëgg lu may def ba see yow mu ne ko jébbaleen sa yaari tata yi mu ne ko tata ji moom xam naa ko waaye bu ñaareel bi xamu ko mu ne ko ñaari tata nga xam sa tata ji ak sa xol bi soo jébbaleen sa xol bi yàlla dugg ci diine islam sa tata ji nga hubbul ko saaba yonent ñu ñëw moom ko kon na nga see yow de mu ne ko nangu naa waaye nag man buur buuru laa adduna yëpp xam nañ ma su may dugg ci lislaam daal kilifa bu réerée ba ci war a dugal waaye du yow xale bi ak li ma lay bëgg yëpp daal seetal ku gën a mag ci saaba yi ñu ñëw ñu ñëw kooku muy tuubal ah mu ne ko loolu yomb na Abu Ubayda dafay ñu jaraa su nga xam ne mooy njiital mboolem xare yi ñu ngi fi de mu ne xoo ko mu ñëw mu xoo ko mu ñëw mu ne ko man day ku gën a réy ci diine bi laa bëgg mu dugal ma ndax ku la mag yi itam ku la gën a ëpp nekk fi mu ne ko ah kay Abdoulaye ibn Omar ibn Khattab ngi fi suy doom buuru jullit yi te moo raw ci mboolem saaba yëpp moo ci ëpp xam-xam moo ci gën loo ci wax mu ne waxal leen ma ko ñu wax ko mu ne ko ana yooyu amul ku la gën a mag ci lislaam man daal ci gën a mag laa bëgg ñu dugal ma ci lislaam ah mu ne ko ah naam Omar ibn Khattab ci amirul mu'minin ma nga Madina de mu ne ci kooku laay dem takkal leen ma pare ñu daal di ko takkal ay waare mu dox ñaari weer ak ci Madina dam yooyu ba taxaw fi karam si dina amar na ko man kat nit ci gën a màgg ci lislaam laa bëgg mu dugal ma ci diine ji ndax kon féetewu la ko amar na a tay yonente ga mere sallallahu alayhi wa sallam ma ngay nelaw ci bàmmeelam ba tam nam mel ca nam meloon ba muy dund noonu la mel ca biir bàmmeel ba mu ne ko kooku laa nangu mu dugal ma nañ dem seen yonent bi Seydina Omar jiital ko ba taxaw fi kanam yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu wax la ko baati seede bi mu wax ko laa ilaha illa muhammad rasulullah naka la ko wax rek yàlla daal di leeral xolam li ko taxaw na dugg ci lislaam kay fàtte na ko bu yàgg mu ne yow yàlla ngëm diine lislaam mooy diine dëgg te mooy diine jënga gëdëm jubal nga ma ba dugg naa ci nga nga ma moom léegi yëppuma ci tilimal dara rek daal di daanu foofa dee suñu amar jooy daal di ko sang jullee ko musul ko ci bàqeew loolu benam bana xa bakkanam rek ko xewoon waaye ba yàlla leeralee xol fa fàtte na la bakkan bi bëggoon de kafaari kana kanon le eñalu laaw lay defe yàlla rijji fa xeetaane fa wala rijji fa mbugal ala la si ne suñu rek laa yëngu gëmuñu fépp ko yàlla bëggut nag dafay lay boole seytaane rek ni mu di la jax-jaxal de waa saa yonent bi siraat rabbi ko mooy yoonu borom sa mustaqim ñu aji jub lii nga nekk mooy dëgg lu dul moom réer la koo xalam dal na a fasal naa digal nanu laa ti kaati sa alquran la kaw moom ñee laaw ni yasakkarana ñeen danañu waaru de la um ñee na leen daaru salaam yi ko def mucc ci aljana inda rabbihim fa borom seen o moom borom bi wàllu yu mu aji dimbale seen bi ma kaano jëfaa fi lañ nekkoon yamaloon doon def ko daf ci jàngatal yow ma nax suróom bés ba nu fangee leen jameen bu ñu mboole yaa ma sawet jinni ay yéen boo leen jinne xad istaktartum bëri ngeen ñu ne lim si ci doolak nit ñi waqaala ta wax awliyaaw mooy nangoo seen ñu ne lim si ci nit rabbana yow borom suróom istamtaa jëriñu na baabu naa ñeena sunu bi baabin ci ñeena saytaane yi rafetaloon nañ nit ñi seen banee si bakkan ñoo ngi topp nañ leen ca ba balax naa jot nañu ajale naa di suñ dafi baaba aj naa ñaan léegi nag ñun ñëpp ñoo nañ tënkam yàlla ci ñu tëkkoon xaa wax yàlla neen naaru safara rek ma faaku mooy soxwaay seen mëdda jàngat yéen ñëpp safaraay seen waaw mooy seen soxwaay leen yëpp nañ ko génn xaali génn dug mu yéen di way génn daa ca safara ila ma saa la la soob na ko laaw yàlla de da ngeen di jël ci safara ci jël boo xam ne xamul dayoo laa ñu ne lu mooy la yàlla soob jalaal ne la yàlla soob mooy waxtu yi ñu génn ci safara di dem ca ndoxam ñu dima di ko naani ndax ca bitti safara nekk ngir la yàlla wax ne sunu na marjamum lay lal jahim wala ila ma sha allah ndara la soob na yàlla ca xam-xam ak yàlla mooy ñi nga xam ne fa soonañu jëm ci mbooloo mi sar ñu tëkku léegi am na ci nga xam ne lañ ñu jëm ñooñu la yàlla soob de sett bi ci ñooñu lay dellu wala illa ma sha allah ndara la soob na ko yàlla ci biir dañuy sax ci àdduna soog a dee ndax boobu duggee duñu safara waaye suñu xasee dugg safara nag moom dañ koy dattatu ba faw loolu la siri kër yi wax li ñëpp nag mooy safara yooyu sunna dajanañ ci ne ñooñ safara dañuy dee ci safara ba faw